waamini rabbi min sulmin wa min sulaam dal leen ak jàmm bu ngeen bëggee di jot suñu vidéo nag fépp foo leen mën di nekk dangeen ngeen a abonné fii ci Sope Farokh TV bés cloche notification bi di aimé vidéo yi di ko partagé mbokki internet yi rawatina yéen ñuy suivre canal bii di Sope Farokh TV di am mbégte ak contentement bu baax a baax ci topp gi nga ñuy topp euh, tey euh, dafa am lu xew mi actualité bi nga xamante ni moo xew ci réew mi Euh, ñu ngi ci fegoo ki nga xam ne mooy Serigne Diallo Mbaye fas yéene ñëw laaj ko lan moo xew euh, ci actualité bi lu ci xew ak demu imaam Alioune Badara ndaw naka la leen touché ak gannaaw loolu sëñ bi dañ lay nuyu di la ziar euh, di la ñaanal jàmm it te it di ñaan bu baax a baax mu nekk Serigne Diallo Mbaye jiite jamaatu ahlul quran wa sunna fii ci Mbuur moom mooy seen président mooy jamaatu ahlul quran wa sunna mu nekk mbootaay bi nga xamante ni dañoo lënkaloo mooy ay daara yu lënkaloo ngir doon benn demu imam Alioune Badara ndaw bi naka la leen tuusi maanaam tuuse gi ak euh, naka la toll ci yéen. ziar bu baax a ok salaamaaleykum wa rahmatullah mhm. euh, ñi ngi leen di nuyu bu baax. Mhm. waa soppey Farokh TV. Mhm. di leen siyaar. di kontaan bu baax. ci liggéey bu am solo bi ngeen def. ñu ngi leen di siwur bu baax mm-hmm. di leen ñaanal yàlla mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. laaj bu am solo nga laaj man maa ngi tudd Ousmane Dramé ñi sama tuur gën a siiwee ci Diallo ñi nekk fi Mbuur di yëngatu ci jàng ak jàngale jamaa bi ñu wax jamaatu ahlul quraani wa sunna fi ci mbuur man mi lañu ko nato ma nekk ci bob bi hand mhm. ci ak suñuy bokk serigne daara yu nekk fi ci mbuur di yëngut ci jàng ak jàngale mhm. nga laaj nag laaj bu am solo muy ki nga xam ne mooy imaam Alioune Badara Ndaw mhm. wax dëgg yàlla ah, ni mu tuusee Mm-hmm. mbooleem nit ñu baax ñi mm-hmm. non la ñu tuusee mm-hmm. waaye ni mu tuusee jàngalekate alquran yi non la ñu tuusee waaye ni mu tuusee imaam yi it noonu la ñu imam ndax imaam Alioune Badara Ndao ku ko xamut it fii ci Sénégal dégg nga ko ci farlum ci njubam ci njàngam ci njàngaleem ci yaram ci dëggum ak bëgg gu ma bëgg yàlla ak bëgg gu ma bëgg rasulullahi ak bëgg gu ma bëgg alkuraan ak bëgg gu ma bëgg diine lislaam ak bëgg gu ma bëgg eh, senegal loolu nag eh, képp ko xam imaam loolu wax dëgg yàlla di ko ko nangul bu dee sa bi si maanaam dara newut maanaam bu dee sa tilimut lii moom ku xam imaam rek. Mm-hmm. lii moom di ko ko nangul. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne nouvelle boo la boo xam ne. bi ñu ko déggee. daf ñu àgg fu sëri te loolu mboolem kuy yëngatu ci alquran rek. wax dëgg yàlla bi nga ko déggee. maanaam tuuse na la tuuse goo xam ne. yóbbu la foo xam ne dina jafe lool. pour nga gaaw a nekkaat. waaye nag bu ñu seetee rek. danañu ko muñ ndax alquran moo ñuy wax ne mhm. kullu man xaliha mhm. lépp lu nekk ci kaw suuf rek daf fiy jóg mhm. kon nag bu fi sayidna muhammad jógee ak sayidna babacar ak mbooleem ak usmaan mboolem mag ñu baax ñi ku mel ni imaam wax dëgg yàlla ah, lu mel nii bu ñëwee dina metti ci xol yi nag waaye buñ xoolee ñooñu rek man koo muñ waaye imaam daal mhm. wax dëgg yàlla Sénégal mhm. ñàkk nañ bànqaas bu rëy mhm. boo xam ne ci wàllu taxawaayam ci diina ak wàllu taxawaayam ci population Sénégal loolu moom wax dëgg yàlla lu nit gàtt-gàtt xel ak lu doomu aadama sa lu mu sikki sikki sikk loolu moom ñoom nangu nañ ko imaam waaw sëñ euh, doguma la sax boo xoolee Sénégal yëpp ñoo ñàkkandoo. Mhm. waaye boo xoolee dafa mel ni ñàkk gi ci daar yi la gën a féete. waaw mhm, ndax euh, ñu bari bu ñuy wax dañ naan taxawu gim daan taxawu daara. waaw taxawu question boobu noonu. Mhm. maanaam ndax daara yi imaam taxawu bu mu leen taxawoo. ak tey di jugee gum fi jugee. dina am lu mu wàññi si waaw man naa wax ne. dina am lu mu wàññi. lan lay wàññi. mooy fam doon taxaw. ku feesee noonu place place am hmm. maanaam wax ne xamul hmm. waaye du yomb hmm. benn ñaareel bi ni ustaas doon communiquer ku mel noonu waxuma ne amul waaye du yomb beneen bi mu ciy teg moo imaam Alioune Badara Ndaw yeewute gi mu yeew woon ak ni mu dégg woon diina ak jamono mhm. waxuma ne amul mhm. waaye ku mel noonu mhm. moom dina jafe ci daara yi benn ñaareel bi it naa wax jafewul waaw euh, man bi ma gisee njabootam ñi génn wax dëgg yàlla dama sant yàlla bu baax ndax ki ma gis mhm. donte miinuma ko mhm. ñu ne ma doomam la ñu ko wax Moustapha Ndaw mhm. bi ma ko gisee mu génn di def benn sortie bi ma ko gisee rek sama xel dafa dalaat kon mel na ni li olof di wax naan doomi ñay kenn du ko ñaanal rëy waaye nañ ko ñaanal fan mel na ni imaam daal dem na waaye mel na ni imaam it mu ngi ba tey looloo tax ba am nañ yaakaar daal ne mm-hmm. ci dimbale gim ñu dimbale ak li mu yeeyee li doon nelaw ci ñun mm-hmm. ku mel ni man ak ñu bëri ci sëriñ daara yi mhm. maanaam loolu dinañu joxaat beneen force mhm. incha allah mhm. loolu moo tax ba ah, lu métti métti métti dinañ ko muy waaye nag am nañ yaakaar ne maanaam oustaz moom dimbali nañu ndax yéena ma yéena sama morom ci lu bëri ci doxalu adduna ak maanaam doxalinu daara waaw loolu moom yéena ñi ci euh, euh, troisième question bi mooy imam comme que dem na nii te imam dafa am rôle boo xamante daf ko daan doxal ci lislaam di ko doxal yi ci peuple bi bañ na ko ba bu waxee Sénégal gi yëpp ñooy àndandoo nangu li wax te xam ne loolu mooy dëgg waaw torturé bi ñu ko daan def si kaso gi métit mhm. googu noonu ak dékku gi ñu ko mën a dékku ba tax mu génn nettali ñu ko mhm. wax ne ne képp koo xamante ni yaa ngi si position bii ni ma taxaw mhm. bàyyil xel ne du dina métti ci yow waaw waaw question bu maanaam loolu ni mu ko daan dalee est-ce que bëri na ndax sëriñ daara yi bëri dinañ ko mën a dékkoom déet xam nga. Mm-hmm. Euh, mën naa lay wax ne. Mm-hmm. nu ko ustaaf doon déggoo rek. Mm-hmm. sëriñ daara yi pare nañ pour déggoo ko noonu wala nu ko raw. waaw. waaw waaw nu ko ustaaf doon déggoo. sëriñ daara yi pare nañ pour déggoo ko nam ko doon déggoo. wala nu ko raw pare nañ. ustaaf nag moom ku mel ni moom. moom ma lay wax ne mën na am. waaye noonu nu ko doon déggoo pare nañ. pour déggoo ko. ndax nag lu ñu mën a am. yàlla ñu ko gënal. lépp lu mu mën a taxaw fi nu kanam mhm. lu dul alquran mhm. ku mu mën a doon ak koo mën a loo mën a yor mhm. moom dinañ ko fil ak koo mën a doon ndax ñun alquran ak sunna si rasulullah moom la ñu yonent bi jox moom la ñu fi nuy way jur jàngal lu métti métti danañ ci taxaw lu ci ustaas doon def dañ ko ci def lu ko jaraloon danañu ko jaral te lépp loo xam ne nag ñi ngi doon taxaw ci kanamam ñoom ñi ngi doog a am problème <laughs> ñi doon taxaw ci kanam ustaas mm. ñi ngi doog a am problème ndax sëriñ daara yëpp dinañ takkatuwaat gën a nekk benn mhm. ba yëkkati alxuraan mhm. yëkkati ko ba ca kaw mhm. ak sunna ak njàngaleem rasulullaay te lu ci nit bañut sëriñ yi duñ ko ci bañ ndax yàlla mooy njëkk moo mujj mooy awal mooy aaxir diina lislaam yàlla moo ñu wax ne waman yabtaqi xayral islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aaxirati min alxaasiriina kon ñun soxlawuñ mhm. ci suñu dund gii mhm. lurut liggéeyal yàlla mhm. ak rasululaahi alquran loolu nag oustaz moom moom dimbali nañu dimbali nañu bëri fekke na it nag yeew woon nañ waaye yeeyaat nañu to doxalinu jamono ba insha allahu rabbi torturé yi ñu ko doon torturé ñëpp xam nañ ni mu méttee ndax ku mel ni oustaz mu ne koo xam ne masula jël pusa di ko jam nit mosul jël lancé di ko dagg nit mhm. mosul jël paaka di ko jam nit mhm. ñu mën koo jin terroriste mhm. loolu yebaate la ak néew yu bokk rek wallaahi yebaate la ak néew yu bokk kese moo tax ñu def ko ko ndax ñi ko ko doon def ba ko xoolee ba xam ni kii xaajuwut ci murid yi loo tax ñeme ko ko def bañ ko xoolee ba xam ne xaajuwut ci tijaani loo tax ñu ñeme ko ko def waaye nag. Mhm. ndokk yàlla bañ ko ko tegee. Mhm. mbooleem koo xam ne sa xol bi fees na ak gëm yàlla imaanu billaahi. Mhm. taxaw nga difaandar ko. xam ne lii du dëgg. système la xeex boo xam ne dañu ko jël tubaab yi seen sëriñu tubaab yi. ñoo leen ko jox. jox leen liste. ñu jàllar bu ko di attaan attaqué nit ki naan ko ab terroriste la. te fekk ñooñu di leen wax ne terroriste la ñoom ñooy terroriste yi mhm. ndax lañ def terroriste mënu koo raw fekk nit këram mhm. digg bëccëg joxoo ko convocation mhm. jël armée bu toll noonu ak moyen yu toll noonu dem ba kërug jàmbur di ko attaqué jàpp ko mel ni dafa rey nit te yu gën a garaaw yooyu ay kilifaang koo def ci réew mi ci seen wàll gi surtout ñoom politiciens yi te kenn waxul leen seen bët bi suufam ci kon da ngay yëg ne ñii ndeke mhm. lan moo leen déranger mhm. kàddug yàlla mhm. alquran rek leen déranger ak diina lislaam moo lay ca ngay xamee na nag ñoom am nañ mille problème <laughs> ndax képp koo xam ne yaa ngi ki koy song ak ku nekk sa gannaaw koo mën a doon julliti Sénégal yi pare nañ pour jàmmaarloo yow luñ xam jël nag koo mën a doon mhm. tiituñu la mhm. te oustaz yokk na ñëpp fit mhm. muy man muy sama morom sëriñ daar yëpp dinañ gën a taxaw takku benn dimbale lislaam diina al dimbale diine alquran ji di dimbale diine lislaam ji dimbale alquran fuñ ko fu ko mag ñi yóbbu woon démb ak barki démb pare nañ pour yóbbu ko fu ko raw lu mu leen jaral nag ñun jaral nañu ko lu mu leen jaral ñoom jaral nañu ko te bu ngeen sonn duñu sonn bu ngeen taayut duñu taay waaye diine yàlla ji kenn duñu ko seetaan nga di ko yàq ndax fanga bu yeron and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. di joxe sen bakkan ñooñu ay goor lañ comme ñun ñooñu ay góor lañ comme ñun mhm. Mhm. ñooñu ay doomu lañ comme ñun iman ba nekkon ci sen xol yi mu ngi ci seen xol yi ñun moo tax ba lépp lum jaral nit pour défendre l'islam ko mëna doon dañu jàmmaarloo yow yoral sa kënu ñu yor sunu kun <laughs> ak sunu kamil ak sunuy kurus ci lii lañ nekk mhm. te imaam yee nañu mhm. gën nañoo woon yoon mhm. sensibiliser ba suñu xol yi yeewu suñuy bët yi yeewu nañ bu baax lu mu leen jaral rek jaral nañu ko waaye lu mu leen jaral ñoom pour yàq diina ji jaral nañu ko ñu nit pour defar diina ji waaw wayam kuroona wayam kuru laaw wallaahu xayru maakiriina heure bu ne ñu ngi ci seen pexe nag waaye nag yàlla ñun ñun yàlla la ñu àndal yàlla nee na xisbullah ala inna xisballaahi humul muflihoon waaye alaa inni xisba saytaani humul xaasiroon mhm. waaw waaw <laughs> euh, euh, troisième question bi wala euh, quatrième question bi mooy est ce que nekkul ne yéen sëriñ daar yi lu ñunut seen kàddu defe naa loolu it bokk na ci ak jamono bi képp koo xamante ni jóg nga maanaam di defar ne diina ci kaw minebar yi xam nga wax ju leen di gën a touché mooy mooy wax yi ñuy wax ci kaw minebar bi di fa woote kàddug yàlla ak di fa woote diine Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu bokk na ci li leen gën a touché ndax yéen yéen sëriñ daara est-ce que jugut ngeen est-ce que jarut ngeen jug wax. waaw li nga wax nii. Mhm. sama bopp laa koy dalee ndax olof moo ne mbale sa wewu tànk. Mhm. ñun ñëpp ñun sëriñ daara yi. Mhm. ñun ñëpp pare nañ. gis nga réew mii tey. lu mu jaral politiciens yi. pour ñu dugg pale. jaral nañu ko ñun sëriñ daara yi pour ñu dugg pale jiite Sénégal. <laughs> wallaay. maanaam mooy li gën a gàtt uh-huh. ci li ma lay wax mm-hmm. ñoom politiciens yi mm-hmm. lépp lu mu leen jaral pour dugg pale jiite réew mi mm-hmm. jaral nañu ko ñun sëriñ yi pour ñu dugg pale jiite Sénégal Sénégal teg ndax réew xel mënul nangu réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans réew moomu musulmans yi tekkuwuñ fa dara suñu constitution bi amul lenn lu mu préparé l'islam ñun kon lan lañ doon ci réew mi xam nga lu ñu ko teg ñàkkaa booloo booloo googu nag mm-hmm. ñàkkaa booloo googu nag mm-hmm. dafa jot ñu booloo mm-hmm. teg mbubu yi fële muy mbubum tiijaan mbubum murit mbubum xaadir mbubum laayan waaye ñun ñëpp ñu booloo sol mbubum jullit ndax ñun li ñu war a boole moo ëpp fépp li ñu bëgg a teqale li ñu war a boole moo ëpp fépp li ñu bëgg a teqale te nag Mm-hmm. li ñu bëgg a teqale jarul mu di ñu teqale mm-hmm. waaye li ñu war a boole jaar na mu boole ñu mm-hmm. kon nag bu boobaa boolente kàddu yi ñun ñëpp ndax ñoo bokk kaamil bi ñoo bokk diina ji ñoo bokk yàlla ñoo bokk rasulaay léegi lan moo ñu bëgg a fiiwale ay affaire murit ak tijaan ak xebaadura maa nag xaadir ak laayeen jaru ko ndax loolu al mbubu la soo mbub mi ak sa mbub ñoo niroo <laughs> niroo wuñ léegi lan moo tax dama bëgg a jékkee ne la maa la gën a rafet mbubu fan laa ko teg man sama mbubu bu ma ne moo gën a rafet yow it nga ne sama mbubu gën a rafet mhm. day jut coow mais bu buñu simee ko ñu ñaar ñu kenn ku ne jëmm rek la mhm. jëmm Mouhamad ju taxaw rek la mhm. am déet boobaa nag loolu ñun ñëpp ñu war a xam xam ne kan ñun li ñu war a boole moo ëpp fépp doole li ñu bëgg a teqale te mooy ñu boolewaat kàddu yi booloo bennoo fexe ba lépp loo xam ne nar na taxaw di ñu gàllankoor ñu dindi ko. Mm-hmm. ndax kan ñun ñu ñu bëgg gàllankoor. Mm-hmm. Sénégal yi seetluñ ko. Mm-hmm. waaye damaa ne matuñ dix pour cent. muy politiciens yi. ñoom ñu boo leen boole woon. matuñ dix pour cent. ndax xel nag mën na nangu ñoo xam ne matuñ dix pour cent bëgg a xañ quatre vingt di pour cent <laughs> bëgg leen a jàmm xel mën na koo nangu. kon dégg nga ne ndeke ñun bu ñu booloo. ànd boole suñu doole lépp luñ bëgg dañ koo am. te incha allahu rabbi. loolu mbooleem association islamique yi ñu ngi ci dox. te dina am nag mhm. waaye xaw ma kañ la mhm. waaye sëreetul mhm. lu mu yàgg-yàgg moom incha allahu rabbi pare bii pare bii ay doomi soxna dinañ fa jox jiite Sénégal gii loolu moom dina am incha allahu rabbi waaw incha allah waaw kon ba tey rek mbokk yi euh, comme ni ñu ko waxoon rek si njëlbéenu euh, émission bi ñu ngi toog ak euh, Serigne Diallo Mbaye mu jiite mu nekk président Ahlu Sunna wal Jamaatu bu Mbour léegi sëñ bi euh, naka ngay digal ahlu sunna wal jamaata bi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo nekk ci mbuur maanaam euh, combat bi nga xamante ni gars yi ñu ngi jóg pour def ko daara euh, pour teg ko ci kaw daara ndax dafa am ñoo xamante ni ñooy base bi mooy ñi ki demee nii comme imam mu fi jógee nii bokkoon na si ki nga xamante nii day day kii daara moo ci boppi la bokkoon léegi moom bu fi jógee rek dañuy mën a laal ñenn ñu ndaw ñi naka ngay wax ahlu sunna wal jamaa ñi nga xamante ni ñoo nekk mbuur loolu la digal seen daara waaw gën a waat rek mm-hmm. ndax booloo gi mhm. ak bennoo gi mhm. ci la suñ force nekk mhm. teqaliko gi mooy sunu échec te loolu ñun ñëpp xam nañ ko ndax lu mel nii firnde la ci lu mel nii firnde la ci ndax kat bu ñu bennooxee luñ bëgg mën nañu koy am waaye bu ñu teqalikoo nag suñuy noon mhm. ak nooni yàlla yii di gàllankoor diine lislaam ji di song kilifa diine yi mhm. di song jàngalekati alquran yi mhm. bu ñu booloo xooy mënuñ ci ñun tus waaye bu ñu teqalikoo nag dañ ñu fitnaal kon jot na Sénégal mbooleem doomi soxna yi ñëpp ñu boole xaat doole yi lënkale ko damaa ne Sénégal tey naa la wax nag lu bëriwul Sénégal tey li ñuy dund nii ci politiciens yi teg ñu ko. mënoon mhm. naay dakk mhm. nemat ci nan. mooy tey ku mel ne Xalifa Muntaxa Mbàkke. Mhm. yenn yàlla yokk fanam te yàggal ko sunu kanam. bu jogoon tey. nga xam ne lépp lu Seex Amadou Bamba. lal fii. ci Sénégal ak lu ci bokk. seen kàddu gi genn la moo ko amee. am déet. dëgg la si. mboolem lu xaaju ci kër sii Seydi Hadji Malick mhm. maa ngi ñaan yàlla mu yokk fanam yàggal ko sunu kanam mhm. kaddu gi yëpp mhm. ci loxoom la nekk boo demee midina Cheikh Maay mboolem kaddu Cheikh Ibrahima Niass yëpp ci loxoom la nekk boo demee Léona Serigne Cheikh Tidiane eh, Niass mboolem kàddu maam xalifa yëpp ci njaboot ci loxoom la nekk gis nga ñii mën nañoo xëy ku ne war seen oto ñu dajee Dakar. wallaahi wallaahi. woo yi. Mhm. teg leen. Mhm. ne leen moomu leen ñu. Mhm. moomu leen réew mi. di ko yàq. sunu njaboot ñoo fi nekk. xam ngeen luñ bëgg. na ngeen doxal réew mi ci dëgg. ñi ànd ak yéen ci jàmm. bu fekkee ne lànk nañ. ñoom seen bopp xam nga nan la ñuy def. seet ka bañ def la ñu ñoom. ñi jàllal bu ko nit ñi ee. Eh, kii moo nangoo ànd ak liñ bëgg mhm. topp leen ko jàppaleen ko ñu jox ko réewam ndax bu boobaa réew mi dina tàkk <laughs> bu kenn ku ne jékkee fu nga jékki nag mhm. ba réew mi tàkk mhm. ëllëg si biir seen loxoñ ci biir ndax dañoo war a wax kat ndax réew mi fi mu nii wax jot na moo gën nag ñu ne ji seetaan ba réew mi kii kenn ku ne naan sëñ baa ngi wax ci suuf léegi réew mi wax ci suuf sottalul ko dangay génn wax loolu mooy defee réew mi bu fekkee dëgg mooy dëgg bu ñu ko gisee ne ñii dinañ génn naan maanaam euh, lii euh, kenn ku ne am lu mu caa lu lu lu muy euh, kii naan lii du teggiin mhm. fekk luy mooy teggiin mhm. gis nga dëgg mhm. nañ ko waxta dee waaye du ma naan nañ ko waxta dee waaye nañ ko waxta dund ñun lii ñoom xalifa général yii kenn ku ne am nga oto am nga moyen ca réew mi war na leen koo jalal seen njaboot gi war na leen koo jaral ndax lu mel ni li fi bi ñu fi jàppee sonk moomu li fi xewoon ñaata nit ñoo ci dee seen njaboot rek lañ. Mm-hmm. am déet. dëgg la kay fii lañ jékki ñi naan ñi ngay wax ñi ngay wax ñi ngay wax. Mm-hmm. Mm-hmm. yow dégg nga la ñu wax. lan moo tax. bu programme yi amee ñoom ñëpp ñu wax ñi ba ñi di leen dégg. yu mel nii bu amee ci réew mi réew mi bëgg a tàkk ñi naan li ngay wax dañoo bëgg ñu génn ñëw Dakar toog. wax. ku ñu du Rasulullaay. wallaay. kan lañu du Seydina Babacar Omar. du Ousmane du Cheikh Amadou du Seydi Hadji du maam Cheikh Ibrahima Niass. du alaaji Abdou Aziz Dabakh mhm. nga xam ne fu réew mi masoon a yëngatu daay génn ñëw toog waxal bu dee wàllu ci président bi la aju mu wax ak moom mhm. directement bu fekkee ci peuple bi la ànd aju mu wax ak ñoom directement mhm. mënuñu lool <laughs> ñi ngi seetaan loo xam ne fa mu jëm bu àggee ca ñag ba du baax ci kenn te alquran mu ne wa in taifataani ne muminina iqtatiloo fa aslihoo baynahuma fa in baqati idaawuma halal loxore hmm. fa qaatiloo lëtti tabqi hatta tefiya illa amrillah ñaari kuréel buñ taxawee di xeex hmm. ñëwal atte leen hmm. boo leen attee kii ne dab kii nangoo ba kii nangu uta bañ ne lànk ni du bañ yow mi koy atte àndal ak kii nangoo ba ngeen jaaral bu ko song ko moom mi bañ a ba wallaahi léegi dañ leen seetaan bañ taxaw réew mi moom <laughs> seen baay def koo moom wala seen yaay <laughs> wala dañ leen koo jaay wala dañ koo jënd lan moo tax dañoo jékki di leen xulle ba ñu taxaw réew mi indi fi nit ñi problème fuñ ko teg ñàkk a gore kefe mm-hmm. ak ñàkk gëm yàlla moo leen dal mm-hmm. waaye bu jàngoon alquran ak mm-hmm. sunna lii du leen dal ñoom ñëpp nag ay taalibi tubaab lañ salaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> ah. waaw mu ngi noonu ba tey rek mbokki internet yi xam naa ne émission bi ala euh, euh, domina Euh, mu nekk ki nga xam ne mooy Serigne Diallo bay euh, fii ci Mbour mu jiite benn kuréel mi ahlul jamaatu wa sunna jamaatul ahlul qur'ani wa sunna ah, mm-hmm. mu nekk ki nga xam ne mooy seen président ñu amoon ak moom seqoon ak moom benn waxtaan bu am solo euh, xam naa ne di ko ñaanal jàmm alhamdulilah di ko ñaanal jàmm di ñaanal mbooleem daari yëpp am jàmm xam naa ne incha allah li nga wax moom bu ko bis ko Serigne Daara yi jëfee rek incha allah rabbi Serigne Daara moom daneen toog pele moom yàlla na ko yàlla <laughs>